sëñ Xaadim daana wax ne sëñ tubaa ku gis li nga koy defal rek di nga gis li mu lay defal te li nga koy defal fii ak dakkul lam lay defal du dakk waaw te sëriñ Touba ñemewul bor waaye daa am pay ñemewul bor nag bu ñu koy wax mooy ku ko liggéeyal rek ci saa sa da lay daal di fay te sëñ Touba ku ko ku ko jëfal ku nekk rek saa boo dundee da nga gis lam lay fayee waaw di dolliwaat ci kàddu yu seere yooyu rek ndax maanaam lii moom mooy mooy kër gi mooy k sëñ mooy maanaam fu xew am rek. ci kër sañ xaadim ñu xam ne loola maanaam mbirum sëñ xaadim lay yëkkati mbirum sëñ xaadim lay wane jëmmi sañ xaadim lay wane ndax liggéeyam dafa yaatu daj fépp ci àdduna bi ni mu yaatoo ba daj fépp ci àdduna bi dafa am kàddu goo xam ne man damay soññ muy kàddu sëñ Moustapha Bassirou mu sañ xaadim yàlla na fi yàgg dafay wax ne ku baax buy liggéeyal yàlla jëfam day tëdd waaye saa bu tëddee rek jëfam day jóg taxaw wane ko maanaam dañoo toll nag ci jëfi sëñ xaadim wane sëñ xaadim loolu rek moo waral jotaay yëpp waaye ñoom it dañ leen di sant bu baax ci seen taxawaay muy waa mbaaw ràññeeku gi ci kër sëñ xaadim bu ci yemoon rek baax na waaye lii nga seere waat yow rek yaa ko mën a seere muy jëf ji ci seen doole ci seen ñaq ci liggéeyu sëñ xaadim loolu nag bu ñu ko defee seen bopp lañ ko defal sëriñ bi lañ ko defal waaye seen bopp lañ ko defal waaw kon nag yàlla na sëñ tubaa fay leen yéen ñëpp yokk leen bu baax yokk seen i xewal ci barkeb cheikhul xadim waaw ba liggéeyub sëñ xaadim ñu yàgg koo ànd mu daj fépp ci àdduna bi barkeb cheikhul xadim te sëñ tubaa nangul nu ko barke borom tubaa fi nekkoon it di jaamu katub yàlla boo xam ne kenn kenn réerewu ko ci yoonu murit li ko dale ci Cheikh Mouhamadul Fadal sëñ Fallou Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khader Serigne Saliou ba ci sëñ Mountakha mii fi nekk tey ku ne xam nga ko te bàyyi nga ko xel kilifa gu ne ci yoon wi teg na fi tànkam ñëw siyaar si ko muy koo xamante ni dundam yëpp ci yàlla la ko jeexal ak yonent bi kon lépp lu fi waaye di sàkku si te muy lu baax gëm dañ ni boo ci yootoo rek suñu borom dana la ko defal kon nak ñu ngi amane mbekté bu baaxa baax ci téway bi di leen sax bu baax ndax ñu ñu koy woté it mom lañu am képp ku japp ci sun bisi rek japp nañ ni yow yaanu yow yaanu jàpp tam lu ngeen di sax yalla moo ko am ñu ñaan suñu borom yalla na leen ko defal barké Cheikhul Khadim té mu gën ci yeen ndax ni ma koy waxé rek la sàkku mbir gën nga da ca am solo ndax lélé léeg mbir dana nit dana yotu mbir sonn ca lool ñak gën nga tax bu ko jotee mën na ko jural leneen waaye nag mooy ñaan yi ngeen di sàkk gënee ci yéen yàlla na ko suñu borom ma jox leen ko barkeb Cheikhul Khadim ñu ngi sant bu baax a baax a baax nag bi ngeen yeggee ngeen jottali ne ko suñu cant ak suñu ngërëm xamal ko ni teewul waaye mel na ni teew na ndax su ngeen teewee yéen rek daanaka indaale ngeen jëmmam kon nag ñu ngi sant bu baax a baax yàlla yàlla faj aajo yëpp defal leen tawfeex jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sant nañ bu baax jërëjëf